mbokk yi arbitre baa ngi wax ak ay jugeem Georges Bouss Papa Laye Georges Bouss école de lutte Batandione Papa Laye école de lutte Boy Niang Papa Laye moo nge moo moo xajam tenti bopp bi ñoo ngay saako yi fekkiwul kenn George Bush Papa Laye eh, Papa Laye nag ne lewaatoo ba andiwaat ci digg géew bi waaw mais Papa Laye mi ñax laf na de Papa Laye George Bush ñoo ngay lewaatoo Papa Laye George Bush eh, ñu faw ñu jure ni ko lebuy di waxee dañu faw ñu jure man ak yow waaye Papa Laye ak George Bush dinañu jure tey ñàkk a jure sa erreur la. George Bush Papa Laye. Papa Laye George Bush. Eh, Papa Laye cokkaas na léegi. Papa Laye cokkaas na léegi George Bush. George Bush daa bëgg Papa Laye taxaw dëggal boppam. ñu jëflante ñoom ñaar. George Bush Papa Zozo Douce Papa Laye Zozo xeex ñoo ngay juree munu cee ñàkk eh, Papa Laye Zozo Douce nee naa la dañuy juree ñii nee naa la dañ George Bush Papa Laye faw ñu juree ñoom ñaar George Bush Papa Laye maa tax ngeen lekk yow ñëpp maa tax ngeen lekk <laughs> eh George Bush Papa Laye tey man alab léwu mbëri tey dañuy juree lébu boo xam ne da ngay juree Thank you. Zoss Bouss Papa Laye Zoss Bouss eh jël na tànk Zoss Bouss Papa Laye jël na ko Papa eh, daan wala nu mu daan na ko Papa Laye daan na Zoss juum Zoss Bouss juum